wala ko Ndongo Lo de mën a wax maanaam ji Souleymane Balde mbapat muy daal. waaw loolu am na waaw. loolu lu yàgg la. waaw loolu yàgg na waaw. loolu ko yàlla yërëm xare ko àjjana. allahumma amiin amiin amiin. ak seen fàllu. ak sa jërëjëf doomu Pikine ma ko Ama Balde. waaye mélangeur baa ngi noonu mélangeur baa ngi noonu. mbokku ndey koy jur. waaw mélangeur baa ngi noonu. mbokku ndey jur. waaw loolu dëgg la waaw mélangeur baa ngi laaj mélanger. ah am na si Ama ak Modou dina am wala du am. waaw loolu la wax ji yàqu la quoi bi rek. mën na laay yaay Ama Ama mooy yow. non laay mélangeurs laay mélangeurs bi rek. ma nangul wax am na ci mélangeur bi. baaxum la mélangeur maa ngi lay ziar. waaw mais bis maa ngi siyaar bu baax a baax. waaw yaa ngi waa këram. yéen waa Pikine la moo tax ngeen baru nii toog yéen ñëpp waa Pikine waaw mais xam nga ñun ñoo bokk fu ñuy añee bokk fu ñuy ndékkee bokk fu ñuy reeree di waxtaan di anaan ataaya ba lamb jot ñu ñëw lamb ji ba pare nag muy suñu chef nga xam ne fi lañ dëkk ñëpp fay fekk si ñu normal dañu ñëw rek service di seetaan suñu mbër muy bëree ñu jàppale ko di ñaanal soq mi nga xam ah, jot yi mi bëri tey ci kàttanu yàlla ñooñu concentré bi pour lu lépp loo xam ne rek mën na koo def ba mu am dam dey ñoo ngi ciy xalaat te am na yaakaar ne am dam bu soobee yàlla. Ama Baldé. waaw amaa ngi bu baax a baax di leen lëmb nag loolu leen lëmb na leen maa ngi siyaar. yàlla na yàlla nañu siyaar. mais lu tax rek waa Pikine ñuy ñëw beru seen ruq toog ni jàpp seen jàmbur lan la. non dafa tombé rek. ñu daje fi mais beru wuñu quoi. ñun ñëpp waa Pikine ñun mais xam nga rek euh, Pikine de Pikine de bi xale yi dëggër rek la mag ñi fe la mag ñi woo woon fii loolu rek la. jat li jëm ceeri. ah di ñaanal jat li mu am ndam parce que moo ñu indi. moo ko ñaanal a ngi téye ndax dañuy xaar rek kilifa gi joxe doj ñu téye. ndax am kay mi ngi ci kurus gi. waaw mais mi ngi ci kurus après bala bay mooy